sëriñ bi nee na waaleykum salaam wa rahmatullah nee na walhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala muhammad nee magi tasawuf yi dañu daan wax ni ak taxalli xabla taxalli mooy sangu day jiitu solo mooy bàkkaar yi ko ba set wicc wastaxfiru rabbakum summa tuubu ilay nee na tuub nañ yow suñu boroom faxfir lanaa yàlla nga ñu jéggal warhamnaa anta mawlaanaa nee na day ñaan nag mbooloo mi suñ jëwriñ ja nga xam ne moo tax ñu teew fi nee na dafa amoon jotaay boo xam ne defe na ne ñëpp ñu ëpp dégg nañ ko nee na boobu da ci doon sàkku ñépp maase jéggulul ko boroomam nee na kon la mu façon ca jéggulu ga ci digganteem ak boroomam nee na mi ngi ñaan suñ boroom yeesal ko nee na jéggulu nag ñu déglu ñu déglu tuuti. déglu dafay amaana nee na jéggalu dafay amaana al amaanatu nag mooy sécurité. sunu nee na sunu boroom dafa waxoon sallallahu alayhi wa ci ak teewam. wa maa kaana allaahu li yuazibahum wa anta fihim wa maa kaana allaahu muazibahum wa hum yastaghfiruun nee na xam na ne bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di nekk ci kaw suuf moom moom yonente bi sécurité la woon ci mboolem lu nekk ci kaw suuf waaye suñ boroom nag ci yërmandeem dane woon yonente bi boo nekkee ci kaw suuf sama mbugal du agsi ci mbindeef yi waaye li boo fi nekkatul tamit li fi yegg ñi ngi nangoo jéggalu mbugal gi du wàcc moo tax nag ñuy wax ne taxal lii la taxal lii sangu doog a soro nee na mi ngi ñaan suñ boroom jéggal nu mboolem bàkkaar yépp nee na lanu jiitaloon ci ay bàkkaar ak lanu mujj ci ay bàkkaar ak la nekk ci diggante bi lépp nee na waxtaan wu ñun biir ndongo yi nag nee na ñi ngi sant yàlla lool ci cër bi mu ñu cëral ci sunu diggante ak moom mooy xadimul Moustapha ñoo xam ne mu ne dafa am loo xam ne ku amul tawféex ji di bokk ci sëriñ Touba. anam gu nekk dana ko tudde nu ko tudde ci defe na danoo xër wala sax danoo ëppal waaye nee na dane suñu diggante ak Serigne Touba. ak yëg la ak yëg neexu ñoo teqaleeg moom. moom. bu mbooloo mi na ndax masalan bu mbooloo mi maasee suur. boo xiifee. boo xiifee. ne xiif naa. ñu ne la dangay wax rek. ñu hmm. ndax mbooloo mépp suur nañ. nee na koo xam ne nag danga moo bëgg a yóbbu faneen. te inna allazina yuhibbuna an tashiha alfahisatu fi allazina amanu nee na ku ñu bëgg a yóbbu faneen nag dañuy jàpp ne dangaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy bëgg a fësal ñaawteef ci ñi gëm ci ñooñu rek lañ lay boole. nee na ku seytaane man ba mu féete foofu nag. nee na ñu ngi jéggalu son boroom te di ko jéggal. te ñun fi nekk mooy. nee na ñun fi ñu nekk mooy. min ka arumul yawma. min an akuna. an akuna. mimman. mimman abaw. li xayrika rukuna. li xayrika sëriñ bi bañam gi muy bañ da ko sàkku ci boroomam. nee sëriñ bi bañam gi muy bañ da koo sàkku ci boroomam. may dama bokk ci bañkat nee na daf ko suñu borom ne ko nag ma ma bokk ci bañkat yi. bu ma nee na bu ma sukkal mukk te bu ma raamal mukk ku dul yow. na te nga may ma it waan uteexaka. bi nahjil Mustafa. bi nahjil Mustafa. sunnatihi lbaydaa. sunnatihi lbaydaa. yaa man istafa. yaa xaafira zunubi yaa qaribu. inni ubaydun haahuna garibu nee na kon loolee mu ñaan li habbi zaaka wala ixwaani jamia sahaadata daarini xaqat yaa samia yaa qarib yaa mujib amin cër bi nga xam ne moom lañ doon sàkku nag nee na cër nga xam ne moom lañ doon sàkku nag suñ jëwriñ ji te suñ jëwriñ ji daan ko sàkku mooy ñu jéggalul ko suñu borom dafa mel ne ñun suñu jéggalu ma nga ca biir loola liggéeyam bii nga xamante ne moo baaw ci suñu xol mën liggéeyam boobu nga xam ne moo baawaan ci suñuy xol ñun mag ak ndaw ñëpp jamonoonteeg moom. li ko li ko sos. nee na li ko sos. sëriñ bi Xadim Moustapha dafa waxoon ne. na sëriñ bu mag bi Xadimul Moustapha dafa waxoon ne. mboolem anam yi ñuy jaamoo sa borom. mboolem yi ñuy jaamoo suñu borom. fu ci nekk jaamu naa ca. na fu ci nekk jaamu naa ca. ba am ci xel mu dal ak xol bu set. ba am mu des nag. ba mu des nag. tarbiyatul naasihin. tarbiyatul naasihin. loolu mooy fàq ndaw ñi. loolu nag mooy toqi ndaw ñi. tokki ndaw nee na mooy tokki ndaw ñi. teg leen ci siraatal mustaqim. teg ci siraatal mustaqim. te jiitu leen ci. te jiitu leen ci. loolu mooy doxalinu Seex Saaliw. nee na loolu nag mooy doxalinu Seex li mu yéene ci ndaw ñi. nee na li mu yéene woon ci ndaw ñi. nee na yéene ci Sëriñ amoon ci ndaw ñi. nangu ga yéen ñii seere ngeen ci. nañ ko bësal nañ ko ah, kon ñeewantu naa leen man ci coono ñëw bi ak jotaay bi nee na ñeewante na leen lool ci coono yi ñëw gi ak jotaay bi waroon ci waxtaan wi. nee na moo tax leneen la ñu waroon a àgg ci waxtaan wi. jotoon naa bokk ak jëwriñ yi ab jotaay. ba am lu leen ci jottali. nee na kon xanaa jëwriñ ju ci nekk. bu demee ba jot aw mbooloom. man leen koo jottali. borom ñoo ngi nee na sunu borom ñoo ngi yeesalu tuub. ñoo ngi sant. ñoo ngi sant. cant ga nga xam ne. nga xam ne. bu ko jaam defee. bu ko nga war lu ko dooleel. nga war lu ko dooleel. yàlla nga nangu ñu sunu sant. ba mu jot cant yooyu. ba mu jot yàlla nga nangul cant suñu cant ba mu jotee cant yooyu. bu ko defee loolu leen li ñuy na ci sama borom nga sàmmal ñu ak lislaam ak lixsaan ci suñuy xol ak suñuy cër suñ na nga nu defaral ak defaru la yàlla nga nu defaroo yàlla na nu may ak defaroo bi jaay xadimu Mustafa suñ jëwriñ fa mu nekk nee na suñ jëwriñ jee it fa mu nekk yàlla na ko fa sama borom yàlla na ko fa sama borom ci seen jotaayu tey jii ci xam ne lam doon liggéeyal sama ci ndaw yi xam ne lam doon liggéeyal sama ci ndaw yi ci firnde na nangu ngeen bokk ci firnde na nee na kon nag. nañ maase fedd di laxasaay rek. liggéey rek. jëf rek. xam nañ ne jamono jii de. boo ko seetloo. boo ko seetloo. da xam ne liñ naan jëf rek a takku. da nga xam ne liñ naan jëf rek a takku. feeñ na ci. ndax na ndax waaraate yi ak wax yi. waxtu woo bëggee waaraate. mbooloo ma ngay waxal. boo juumee ci addis wala nga juum ci aayawu alxuraan ñu bari danañ la gàggante nee na kon loolay tax nga xam ne wax ji xëy na am na njariñ waaye jëf ji nag fi mu ne moo jiitu kon waaye gars yi rikk nañu jëf rek nee na yàlla na suñ borom kàttanal defal ñu ci xol yi. kàttanal ñu ci xol yi. kàttanal ñu ci ñu ci xel yi. kàttanal ñu ci xel yi. kàttanal wér gi. kàttanal ñu ci wér gi. kàttanal ñu ci wërsëg gi. kàttanal ñu wërsëg gi. te lépp yàlla nañ ko delloo ci lu ñu jox ngërëm. salaamaaleykum waaw ah, sëriñ bi mu ne njaboot nag boo àndeek moom mu ne ngeen déglu tuuti nee na njaboot boo àndeek ñoom ne leen góor góorgóorlu leen ñu góorgóorlu nee na war nga leen wax ne leen waaw góor nee bi ngeen njëkkee waxtaan nee na da leen ñaanoon ngeen góorgóorlu ci xam suñu faraa'idul ayni góorgóorlu ci alxuraan ji góorgóorlu ci xasaayid yi nee na xam na ne lay faraa'idul ayni yi li nga yi nga xam ne mën nañ cee teg bët mën nañoo loo njort ci ne taxaw ngeen ci na li ñu teg bët moo di mooy indi ngeen kaamil boo xam ne yéen a ko bindal seen bopp nee na kon yéen a ngi farlu ci alxuraan ji nee na xasaayid yi it ngeen fi yëkkati moo xam ne ña ca daara ja te dëkkoo ko jiituwuñ leen ci nee kon moo tax nag yéen a ngi góor góorlu ci ndigal yi waaye nee na ndigal nag nee na ndigal nag sama borom da cee toftal ndimbal nee na kon yàlla na nu taxoog ndimbal tey ak ëllëg